Amadou Diallo laa tudd dama leen di bugg a xamal ne ñun ñun ñoo nekkoon fii ASA lu ñu doon liggéey depuis deux mille vingt deux mais de mais deux mille vingt deux la amoon fii problème ak mairie Wuro Sogi maire Moussa Bokar Thiam ñu ñu bindal fii manquement des graves te ñun CDI la ñu yor depuis loolu depuis yooyu yooyu nag ba léegi ñu ngi fii problème problème baa ngi fii bu yàlla dogal changement am parce que taa yooyu dafa waxoon ne borom doole la dafa am doole ci nguur mi la nekk day day def lu ko neex dara lu ci fekk yàlla dogal ne léegi état bi changé na beneen beneen état moo ñëw di ñu bëgg yëgal beneen état buy ñëw ñu xamal ko problème boobu mu ngi fii ba léegi depuis mois de mais deux mille vingt deux mu ngi bloqué fii suñu salaire bañ ko yóbbu trésor public loolu moo tax suñu salaire bii du ñëw léegi nag ñu tàllal état bi état bu bees bi bu ñëw ni ñu koy xamal ne problème boobu la ñu ñu ñu ñu ci problème boobu problème boobu xaw na yàgg ñaari at ñu ngi fii dem nañu fune def nañu lu ne façon conférence presse bu ne def nañ ko mais li ñu sant nak justice parce que buñu buñu démé justice justice di ñu wax mënul wàññi loo xam indi ko fi tek ko fi juge ko mais mom day def ligéyam juge ko jël dossier yi jox huissier def na lolu def na justice bi def na ligéyam mais inspection travail deful ligueyam fi ci région bi parce que bu mu ñëwee ci mom mo nek premier corrompu deful ligueyam préfet aussi non la deful ligueyam ci ñun gisunu ligueyam ci ñun trésor public tamit non la légui nak nguur bes nguur bu bi du ñëw néna jubal sellal diñ ko bëgg xamal né mairie Ourossogui moo gën a scandale ba gën a bon ci Sénégal booy war scandale bi nga daj boo ñëwee ci mairie bu wur Ourossogui Moussa Bocar Thiam scandale bu gën a bon fii ci mairie Ourossogui bii la nekk. parce que mu ngi recruter ñun mu ngi recruter fii. asa asa asa yoo xam ne. ay asa fictif lañ du ñu xëy kenn du xëy subu dem liggéey ñoom ñëpp dañu toog si seen kër ñu leen ñii ñu defal leen CDD ñii mu defal leen contrat. te kenn du xëy subu liggéey ñoom ñëpp seen kër lañu toog la ñu wax asa effectif ñoo xam ne amuluñu maire bi benn njariñ amuluñu maire bi benn njariñ ñu ngi fi toog seen kër bu ñu yeewee subu ñu toog seen kër ba weer jotee ba weer dee ñu dem jot jot seen salaire ñu ngi fi ñooñu luy seen liggéey bu ñëwee fii ñoom ñoo ñooy takk baas ñoo ñooy togg ci nii ñoo ñoo koy wax sa waay yaa war yaa jaaree gaynde bi léegi nag ñun di ñu bëgg état bu bees bi ñu dimbali ñu ci problème bi of nag di ñu bëgg mu ñëw fii audit mairie Ourossogui cour de comptes di ñu bëgg ñu ñëw fii audit maire mairie Ourossogui parce que ñun ñii def nañu trente ans service ñii def nañu trente deux ans service ñii def nañu vingt ans service man def naa onze ans service CDI la ñuy yor ñu dàkk. mënuñu dàq day bulletin suñu bulletin day joge petit centre ba léegi ñëw fii bulletin bi bu ñëwee fii ci mairie Ourossogui fii lay boole ak bulletin bii bañ ko yóbbu trésor public loolu moo tax ñun suñu salaire du mun a du mun a ñëw banque système boobu lay def léegi nag ñu bëgg état bu bees bi président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñun loolu moo taxoon ñu ñu def démarchement yàlla may ñu. ñu wootal ñu wootal ko suñu suñu suñu voix moom lañ lañ ko jox à cause de pour changement la ñu bëggoon mu am ba changement bii amee loolu moo waral tey ñu toogaat defaat conférence de presse bëgg xamal ne ko loolu depuis ñaari at ba léegi problème bi mu ngi fi mois de mai daaw deux mille vingt deux bu mois de mai bii lay ñëw mo mu nekk ñaari at problème bi mu ngi fi président buy dem Macky Sall ñoo ko moo ko bootoon ginnaawam mu ne moom lu ko neex lay def. dara du ko dara du fekk borom doole la. en tant que ak euh, kii nu mu tudd Farba mu ngi fii. ño kenn mënu la ci dara si moom loolu la wax fii. nee na borom doole la. léegi nag ñun ay miskin lañu. ci loolu lañu dund ci loolu lañu ñu dund dégg naa état bees bi ñu wax jubale ak sellale nañu xam ne fii scandale boo gën a bon booy wër ci Sénégal nga bi nga daj scandale bu nekk fii ci mairie bu Oussogui moo gën a bon. même ñii retraité ñu ngi daw seen ginnaaw depuis huit ans bu mu nekk fii képp ko retraité da koy bloqué du ko nangal signal signé ki am droit am lu mu lu mu war a am léegi nag rakkam ku mu bokkal seen baay ñoo bokk ndey ak baay mu ngi fii kooku retraité na retraité na jox na ko retraité am bu mot sek depuis trois desi aussi defal na ko contrat bu bees mu ngi fii toog ci mairie bi liggéey moo yor moo moo yor délégation signature. délégation signature bu mairie bu Ourossogui loolu nag dañu talal état bu bees bi loxo di bugg bëgg mu dimbali ñu jàppale ñu ñu ñëw audité mairie Ourossogui ñu audité ko ak Cour des comptes parce que moom mu ngi fii day muuc deret Ourossogui day muuc deret emploi Ourossogui yi loolu rek la nekkee fii scandale boo gën a bon boo koy wër boo ñëwee fii ci mairie Ourossogui da koy fekk ñun neuf 11 personnes En 2014 bu mu toogee fi 2014 Nous avons 24 personnes Nous dem Nous ñun la système bi rek lay def mënul dak ken parce que ñun di ñu auditer fonction publique local. depuis depuis 2011 mois de mars 2011 nous auditer fonction publique locale instant yoy maire 53 asa mo ci bu ñu xoolee liste Ourossogui bi ñu la audité fonction publique locale 53 agents moo ci nekkoon ñu ngi fii day def lu ko neex fii doomu Ourossogui yi dañu souffre emploi yi nekk Ourossogui dañu souffre liggéeyul dëkk bi deful ci lig dëkk bi dara dëkk bi mu ngi londom kunus dëkk bi mu ngi xeeñ kunus ak mbalis moom yoonam ci dëkk bi da ko dëkk bi rek base de politique loolu moo tax ma recruter plus de quatre-vingts personnes kenn du xëy ñoo ñëpp emploi effectif la kenn du def liggéeyam ñoom ñëpp seen ker la ñu toog ba ñëwee ñoom ñooy takk baas ñoom ñooy defar cin yi ñun daañ lu ñuy bëgg ñaan nguur bu bees bi parce que nañu fay suñu droit ñu delloo ci suñu liggéey loolu moo tax ñu ramle fii parce que justice bi def na liggéeyam ba pare justice bi jaaraama gàcce ngaalaama justice Matam bi wala justice Sénégal def nañ seen liggéey léegi ñun lu ñu bëgg ci monsieur jomay ak Ousmane Sonko nañu delloo suñu liggéey ñu fay ñu suñu droit ñun loolu la ñu ñaan leneen ñi nag ay kii parce que moom dafa ne en tant que Farba Ngom ak Macky Sall mu ngi fii mënuñ ci moom dara parce que dossier bi le vingt 22 kii janvier 2022 le 19 janvier 2022 lañ ko délivré mu ngi nii ci suñu loxo depuis lor ba léegi nag gisuñu dégguñu loolu la ñu ñaan ñaan nguur bu bees bi monsieur le président ak monsieur le premier ministre ak euh, num tuddu euh, ministre collectivité locale Moussa Balla Moussa Fofana ñoo ngi lay ñaan nga dimbali ñu son nañu trop waaw lool mo nekkon suñu après duñu bëgg yokk ci dara Olof Ndiaye def wax ben affaire nee bo yaré golo bo dem ci Allah bi nga am golo nga yar golo bi bu sa yet ajo ci kaw garab bi golo bi def la wara ajil sa yet bi loolu ngay mun a xamee golo bi am na njariñ ci yow mais boo fekkee da ngay da ngay yar golo golo bi sa yet sa yet aju si kaw garab golo bi mënul a aji golo boobu amul lu la njariñ luy loolu moo boobu fu mu jëm ci syndicaliste yi mu am nañu suñu syndicaliste yi ñu ngi fii ñu ngi leen di gis chaque jour ñu ngi kaas ñu ngi kaas ñu yokkal travailleur collectivité locale yi ñu ñu yokkal leen seen salaire mais musuñu dégg ñu ngi wax lu ñu kale nag suñu seen asa lu ñu kale nañuy wax si seen asa yi ñu kale ñu lijjante seen bulletin yi ñu bloqué fii ci mairie Ourossogui bulletin yi débloqué ñu mun a ñu mun a lijjante ndax ñun bu jokk bi amee sax ci bulletin bi lañ koy def ba léegi bulletin bi bu ñëwee fii fii rek lay nekk duñ ci jot duñ ci jot kon ñun amuluñu njëriñ li ñu bëgg bu ñu waxee nañu nañu nañ ci bàyyi xel parce que ñëwoon nañ fii ci Matam ñu def ak ñoom ay réunion ñu wax leen loolu la ñu wax aasa yi ñu kale ci mairie yi bu ñu toogee ci ministre yi ñu soo soogee ministre travailleur nañu wax aasa yi ñu kale d'abord ñooñu tamit bokk nañ ci parce que ñun ñu ngi nii di ñu kale mënuñu dakk dakkuñu di ñu kale rakam mu ngi fii mu ngi teg fii rakam mu ngi teg fii rakam comme secrétaire municipal moo gën a nekk cuuna si secrétaire municipal Sénégal yëpp xamu ci dara ci administration loolu la bëggoon eggale nguur bu bees bi mu xam loolu problème bi depuis là-bas mu ngi fi ñaari at léegi nañ ci jàppale dimbali ci ñëw xool Ourossogui ak région Matam ñoo gën a ëpp scandale